njiitu réew mi Macky Sall ba tey bàyyiwul nanguwul ni yoon am na dëgg ci kawam ci gis-gis waa FC 25 jàpp nañ ni ba tey moo ngi nasi pexe tëlam sa jublu dul lenn lu dul fexe rek ba benn bokk yaakaar des ci boppu réewu Sénégal donte ni sax conseil constitutionnel joxe na dogal la jël décret ba mu xaatimoon santaane ñu amal élection yi ci nu mu gën a gaawee fukki candidat ak juróom benn yi lëkkaloo ci FC 25 ñoom jàpp nañu njiitu réew Macky Sall jamono gi dafa nekk rek di saboté yooyu la élection ndax gisuñu dara luy firndeel yéex-yéex bi ñu gis ci tàmbaliwaat bi ñu war a tàmbaliwaat processus électoral bi fañ ko yemale woon ci bataaxal bi nga xam ne 7 bi jot na ci Mamadou Lamine Diallo ak ñi mu àndal yéex-yéex googee la ñuy ŋàññ ndax nee nañu njiitu réew mi Macky Sall boobu ba léegi mu ngi ne patt te ñëpp a ngi koy xaar Sénégal ak réew yi nekk si àdduna wërngal képp ngir rek mu tànn ab date bu yees boo xam ne askanu réew mi daañu mën a dem sa bañ gàccee tabb seen njiitu réew ñoom daal gis nañu ni ba conseil constitutionnel joxe dogalam fukki fan ak juróom si weeru février boobu ba léegi dara puusul paasul collectif bi nag jàpp na ni amul dara luy firndeel yëfi ni mu tagga tembe ndax bu dee si wàllub yoon lépp leer na xàll nañu yoon wi ñoo ngi it ŋàññ fichier électoral bi nga xam ne ni ba léegi mandataires yi yi mënaguñu ci teg loxo FC 25 di fàttali njiitu réew mi ne responsabilité bi yépp moo ko gàlloo moom dong moo mën a génn Sénégal ci tolof-tolof yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel ñeel bi la élection présidentielle ñoo ngi it tëkku képp koo xam ne taxe nga walla nga laale si li ñu jàpp ni sabotage la. yile candidat bokk si kujje gi fas na ñëw yéene tëral plan d' action ngir rek ñu amal yile élection présidentielle si anam gi ko yoon santaane.